moom même Issa Sall bi mooy bandi boobu génnoon ne moom moo wax diggante Ousmane Sonko pour mu rencontrer kii nga xam ne moom mooy Mansour fay mu ne Ousmane Sonko moom la yónnee woon audio pour nekk ko dafa bëgg a rencontrer Mansour Faye moom ak Ousmane Sonko ñoo nekkandoo woon euh, Gaston Berger université Gaston Berger kooku mooy Issa Sall benn doomaraam la boo xam ne moom ak moom moom maanaam coq Macky sàll yi sax ci biir tubé yu Macky sàll sax moom turam a ngi ci ñu engravé ko suq la dunguru makki Sall bu nangamtaan lëfal ndem la focus leen rek nee naa leen tali bi mi ngi gën a leer di dem Issa Sall ki nekk caisse des dépôts et de consignation moom ak waa DGE ñoom ñëpp ci complot wu Ousmane Sonko bañ a bokk ci ay élection la ñu nekk mais mënuñ ci dara gis nga ginnaaw yàlla li yàlla dogal ñoom baadoolo yi pauvre yi tous ces mécréants là ci gàcc rek la ñuy mujj concentré leen focus ñu continuer ñu bàyyi suñu experts yi bàyyi suñu nga xam ne ñoom ñooy dox doxalin boobu ñu dox focus leen rek dem leen continuer pare ne te gëm ne incha allahu rabbi incha allah incha allahu rabbi Sonko dana kanda te incha allahu rabbi moom mooy jël présidentielle 2024 loolu moo leen teree nelaw bu leen kenn bàyyi xel bu leen leen bàyyi xel ne leen répondez pas ne répondez pas aux provocations bu les leen faale vous focus il rek Issa Sall c'est le même bandit Y a xam ko ki may wax fi génnoon di manipuler ne frère Marème Faye Sall bi Mansour Faye ñu comploté Issa Sall Ousmane Sonko pour gis Mansour Faye Il ay c'est le même clan le même groupe de bandits les mêmes délinquants concentré vous focus focus rek dinañu yegg fi ñu jëm incha allahu rabbi wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu